secteur yi nga xam ne dañu leen dañu am impact ci wàllu euh, pandémie du nag ñu euh, préciser ko du secteur yooyu dañ ne ne rek liggéeykat yooyu dañ leen a dàq moom liggéeykat yoo xam ne dañu niñ doon liggéeyee dafa wàññeeku ou bien parfois ñu leen en chômage technique ñu toog seen kër di def ay télétravail ak yooyu donc xëy na yooyu bëri na ñoo xam ne nag seen liggéeyu bopp lañ yoroon bien ñu liggéey ci service yu ndaw yoo xam ne dañ ñu toog seen kër parce que liggéey amul donc bëri na ci cas yu mel du ñëpp lañ dàq euh, ñi ci dàq nag surtout ci wàllu wax naa leen sànq ne signé nañu benn euh, euh, pacte social ñu couvrir nan la ñuy yëkkatiwaat secteur tourisme ak transport aérien secteur boobu pacte boobu. liñ ci def mooy état bi dina ci apporté cinquante milliards pour secteur tourisme dina ci apporté vingt milliards pour secteur transport aérien dinañ fexe liggéeykat yooyu ñàkk seen liggéey ci wàllu pandémie euh, ñu xool nan lañ leen di accompagner pour que ñu permettre ñu ñëw seen liggéey euh, buñ ko amul aussi posé nañ déjà ñun ci suñu revendication wax nañ ko léegi spécial ni mou defee fonds spécial pour xëyu ndaw ñi def benn fonds spécial pour préserver emploi yi nga xam ne dañ leen menacer ou bien ñi nga xam ne seen emploi dañ ko ñàkk voilà donc proposition yi nga xam ne moom la coalition bi def et ci yooyu yi liggéey ci mais ren comme situation bi am mu ngi amélioré retenir nañ ne dinañ defar cahier de doléances dinañ dem jàkkaarloo jàpp nañ ne aussi cahier de doléance deux mille dix-neuf bi nga xam ne moo fi nekkoon euh, mois yi passé jàppal nañ ko def évaluation rapport bi génn dinañu xool li nga xam ne génn na ci boole ko ak li nga xam ne mooy cahier de doléance euh, waxtaan ci ak euh, état bi parallèlement ci biir entreprise yi gis ngeen ne secteur yu bëri commencé nañ yëngu commencé nañ ñoom saytu seen ay préoccupations Então vamos descer Se tiver de Educação né? de Guerra commencé nañ déposé ay maire wax nañ léegi ci biir texte bi biir ne ñoom accord yi suñuy gouvernement ba léegi application bi lay def donc então, nañ leen ci accompagner ci liggéey bu jógee ci é cahier de doléance bi dinañ organiser benn um webinar xam ne secteur généraux yi ngan ko ñooy nekk en contact ak l'ensemble des travailleurs fu travailleur du rek Sénégal ñu def ay defal leen introduction déglu leen recueillir aussi seen ay contribution ci le premier bi à la place en tout cas du défi euh, échange bu mel moom lañ bëgg def ak